yàlla na Sénégal gagné football bi la ay pray Sénégal should win this match ay pray Sénégal should win Egypt please guys pray for me please nañ leen ñaan Sénégal Sénégal yàlla na gagné match bi yàlla yàlla ngir yàlla yërëm ñu yàlla